dem ci yàlla asu soxna ji jigéeni biir ji ñu ne dañu koo sàggane ci l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga ba mu dee ci seeni loxo suur soi ne nañu léegi tey ñu am lu leer nañ ci li ko faat ubbil yéene kay bi direction santé mère enfant ak chaire gynécologie bu université dem nañu fa saytu la fa xewoon ba def seenub rapport démb ci guddi ci la jébal seenub rapport ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr journal bi dañu waaye balay dara di xew ñoo sant ko ko seen loxo laale na ci li faat asu soxna dañu fay jële directeur ba rajo infirmier ba ak lu ci mën di xew fii ki waxtu journal bi nee nañu waa ministère de la santé danañ ci def ab communiqué baa ñu conférence de presse ngir yeggi nit ñi la nekk ci rapport ba libération nañu personnel ba hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga li ñu waxoon ne moo xew ci mbir yi lu bari du ca dëgg kàcc nañu ba doyal ndax mission bi ñu jële woon fii ci Ndakaaru yóbbu ko ci Louga ngir ñu la fa xewoon lañ fa gis ak la direction mel ne yàlla ak yàlla li am moo di taxawaay bi a taxawoon ndaw si des ñu ko ñàkkal fayda métit wa mu doon yëg naka noonu waa police it bi ñu def ci mbiri libération nee nañu la mu wanegu moo di sàggane gu ñu ko sàggane ba musiba mujj fenn ndem si mi waral coow journal bi nee nañu président Macky nee nañu ko ci enquêtal wax ko li xew fii 48 heures direct news dañu fàttali ne sàggane nañu fi benn xale bu jigéen bu ñu naan Aïcha amoon fukkeet ak ñaar ba mu mujj faatu ci l'hôpital bu Pikine ay liir lakkoon ba faatu ci hôpital Magatte Lô bu Linguère te ba léegi dégg gu ñu kenn ku ñu ci teg ay daan le mandat mel ne ku naan ko prise en charge bu bon bi am ci hôpital public yi ci réew mi li muy jur ci réew mi ne ay loraange boo ko doon lim du jeex hôpital yi réew mi ak centre de santé yi ci réew mi le mandat ne nañu fu ñuy dem di faatu la ñu gën a jege ci fu ñuy dem di fajo journal la fa nañu négligence di càggante gi am ci opital yi réew mi mooy sax yuy yàq système li ci gën di yéeme moo di jëye yi am di yokk ci yi ca yu njëkkee dinañ ci wax ñaaw lu ko naqar la ko waaye fa la yem dara du ca tege ak coowal hôpital yi te ànd ak l'observateur dem ba ca Florence ga ci Italie ubbi yéenekaay bi Pape Demba Wagne mooy doomu Sénégal bi police bu Italie doon fitnaal ci mbeddi Florence l'observateur mi ngi ñuy xamal ne police bu Italie bu weesoo crime boobee ñu def ba àdduna bi yépp teg ci seen i tegaat nañu ci beneenub crime ndax moom moodu moodu bi famem nee nañu ba mu bëggee ab certificat médical gaa ñi dañoo bañ ne duñ ko defal ren di maami yéenekaay bi nee nañu moo doon tëddee ca biir biroom benn xale bu jigéen ci diggi weeru koor yi ba ñu ko doon def nag dañu ko doon filmer yàlla nattu leen njëf yi génn ba teere ci loxoy ku ñu naan Babacar Sow newoon chargé de communication bu Ousmane Noël Dieng te ñu dàqoon ko moom Babacar Sow bi mu jotee ci vidéo yi li mu njëkk def moo di yónnee ko Diène Farba Sarr bu nuppi yónnee ko jabari Ousmane Noël Dieng ñu ne déet na waaye mu ne dana ko yónnee Adamo ca la Ousmane Noël Dieng jugee porte plainte yoon nekk ca di ko am ñetti nit yu ca teg loxo ba jot leen a